Free Money Mastercard disponible dans les agences et boutiques Free, mais aussi sur votre application MyFree. Avec Free Money Mastercard, des Free si ça calpe. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Royal Horizon Baobab, feel free, feel home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon. dama ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na de Leral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. Bravia Hôtel Ouagadougou, vous aimerez déposer vos valises chez nous. Téléphone 00 226 25 32 97 97. au royal Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Laïdjara remercie ses partenaires. Kuna Fashion. Toi et moi, boutique. M60, Batifa Couture. By HLM, e votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. kapsi kapsi kapsi kapsi welcome to my dark side teewal si kap teewal sama gox si kap bi dëkk neexee ko ñu nandi tee ko ñu jaay brek la lépp di partir de ce samedi 7 mai, votre série Impact revient tous les mardis et samedis après le JT de 20h sur la TFM et sur Marodi TV. Suivez aussi Jara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2S TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Marodi, inspiré par vos émotions.

mais temps boy, histoire jang ay xam nga tu mais servir quoi j'en passe bête quoi pourquoi t'es bête comme ça ay waxu tu ngay wax depuis quand tu rentres dans mon bureau sans frapper à ma porte mais non c'est pas vrai quoi mais jërëjëf de ma vie tubaab bi Serigne Ndiaye moo ko rey. mais les dañu sa beneen quoi yu sa xel xalaat saa yi scénario la gars yi ñu ne neex nañu koy interpréter aywa def nii. on appelle ça de la fiction boy yoo xam nga luy cinéma boy xoolal boy déglu ma boy waxuma la waxu ay fiction ak cinéma Mais je parle de la réalité boy histoire bi on doit pas le modifier on doit pas le transformer élèves dañ ko war a jàng pour comme seen histoire dëkk mais quand même c'est Thiès quoi la capitale du rail <laughs> Mais on doit, on crasse comme ça, boy. Ouais, là, t'as gagné. Ouais, ça va, là. Je ne sais même pas pourquoi je fréquente des ignorants comme vous. Bordel Ouais Mon groupe de bourré, mais c'est la capitale du rap. Mon père, waaw dafa am benn film moo ñu seetaan léegi si histoire du Sénégal mais ci film bi ma gis ni Diery Dior Ndella tubaab bi ko convoqué mom mo ray tubaab bi mais man loolu ken jàngalu ma man janguma loolu. lay lay yaa ngi dugg ci point bu sensible. sensible ci lan la xamul. est-ce que xam nga histoire bob kagn la woon laay histoire bob mo mak sa maamaatu mam 1904 la woon histoire seri ci djey mom mo ray tubaab bi. ah mais voilà seri ci djey mom mo ray tubaab bi pourquoi ñu modifier histoire bi comme ça kon. waaye nag da nga wara a ak dal.

Mais nous, on est manipulés, quoi. On n'a plus de repères. Nos histoires c'est modifiées et tout ça. Hein? Mais non, je ne suis pas d'accord, papa. Parce que Sir DJ, le Moudef, c'est un acte de bravoure, c'est un acte de grandeur. C'est à saluer et noter. Parce que Gérard Shobinio, Warren Sidjang, c'est quoi un amitié Parce que Sir DJ, le Moudef, ça a été bien bakar que c'est mon communal. Machallah. Sénégal lay C'est dëkk boo xam ni da ngay judd ñu lay jàngal ay de kott yàlla de ay saa mori mori ba ay la léppoon et tout ça Hein? mais non non waay quoi mais ay ay feni kese. fen laay kon nag maa saga. non mais papa saaga ma la. ah mais lan nga wax. non je suis fâché. mais je suis là. non je suis là. laay nekkal laa laay mer da nga ne je suis là. nekkal laa laay ba xam kenn moo ko yëg je suis là moi moi Géant yow lan la. du da nga ne da ngay régler problème bi du loo dugg génn ci laay loo dugg génn ci loolu sa barke baay la man la père mais lii ànduma ci yow bis bo ci duggee ak ko meuna a dëng ci dess comme da ngay jaay da ngaa wow bo duggee kees fekk fu ñu la gëna a wow. je vais à Thiès. yow lay lu ci sa yoon lan moy sa yoon ci histoire bo xam sa yoon nekku ci lu ci sa yoon ci histoire yi Dieyri Dior Ndella la Henri Suzanne ak ci Dieye lu ci sa yoon lay c'est Siré Dieye qui a tué. ah chatan hein c'est Siré qui a tué chatan on va pas accepter qu'on modifie les histoires on a besoin de cette jeunesse quand même oui. léegi demal yaa ngoog say copain ngoog dem len ñu ray len ñu indi len ngeen doon ay néew lay merde da ngeen dem len pourquoi Quand vous me regardez comme ça hein? on va faire une réunion huit clos ça va Huit clos. on va en mission vais dem Je hein. dama fa vérité c'est pas rétabli vous êtes là quoi bëgg xam ñuy dem ak demul vous êtes éliminé déjà man j'aime pas que je parle on me prend pas au sérieux ok je m'adresse à toi tu es mon ami d'enfance on a vécu beaucoup de choses ensemble bon combat cette fois je te demande tu peux compter sur ton meilleur ami merci à toi tu es un vrai frère merci beaucoup Cholou la patrie ou la mort, on a essayé. Il y a un petit Donc oui, allez, on y va. Yalla tif, yalla tif, yalla tif. Hein. on est à la place de France. Vous voyez comment c'est beau. Mais c'est une place historique. Les premiers on est là pour une mission. Donc restons concentrés. Soyons responsables. Hey, eh, miss. Yeah, pardon. Ça va? bien. Bien cool. Eh, dama taw sama gars ma gis ngoro ma ne xam intercepter le game wax yow quoi. oui yaay kan ma may intercepté. ah oui c'est vrai <laughs> bon c'est vrai bon man je m'appelle Eliman, mais ni may woowee Ataya Man dëkk Dakar xam nga plus précisément Cap représente. représenté. dëkkal Paris nga maa faale Bu si xoolal ma kaw ba suuf et puis c'est la dernière fois may dox nga may intercepté ci mbedd yaa may dégg waaye dégage waay yow. Rato. <laughs> ataay man tu es un rigolo quoi yow da nga boy booy Thiès dañ la complexe est-ce que da ngay ñëw fii xam nga tu fais ton petit numéro de tombeur à la booy Sicap après boy bi yuuxu il est mignon jox la numéro Boy, believe in you Comme ça, bob. Thiès la que baax rip boy, rip booy ataay man la mool dal boy. Hein? mais boy, c'est quoi ça Boy, xanaa xamoo lu la fendi yow la mission Boy, yow xam nga ko mission wala fendi pourquoi faire ces manières Hein? Boy, pourquoi tu es féminine Boy, boy, let's go boy. jaay sa ngor Boy correct, quoi. nous ne nous déshonore pas quoi. On vous remercie accueil bi ñu et tout ça. c'est tout naturel. franchement aussi ñoo ngi rafetlu aussi ce liggéey gis nañ li ngay def. Ah, parce que audiovisuel bi xam nga film yi ngay réaliser et tout ça franchement nous ngi gis nice na quoi. Ah, ah tout récemment film bi nga def sur la rébellion de Thiès. Mhm. ah oui c'est nañ ko. ça vous a intéressé quoi oui ça nous a intéressé mais que the am ben affaire comprendre ah la scène euh, sur le meurtre du commandant. oui ça reflète pas la réalité. Uh-huh. parce que ñun en éducation dañu ni rey donc nous comprendre histoire ko la en <laughs> réalité li nga xam ne ñun moom la ñu en fait bien que def ñu production mais xam que ni cinéma ça reflète à la réalité un peu quand même. mais yow war nga xam ni que lépp loo gis ci fi mu liggéey. oui monsieur le producteur on a ko doon notion de fiction. yaa ngi Il y a de la fiction quand même n'est-ce pas dañuy le film bi ñu bindee ko ni nga xam ça peut intéresser les gens pour qu'on puisse gagner de l'argent mais nous on fait quand même du business quand même dañuy liggéey quoi mais non li nga wax ni taxul ma d'accord ah, mais man li bëgg on va reprendre la scène ñu eu ko def ñëpp xam ni waaye Serigne Dieye moo rey Henri Chetan. mais yow mais je rêve quoi mais dama ne la man du ma investir sama xaalis wut samay acteurs di joué samay film ni ma ko sentiree nga ñëw toog fi di ma defal la leçon de morale mais toi tu es qui. eh man la Laye Diarra l'activiste. ma ne la man xam naa la bu baax je te connais très bien nek ci dëkk bi wax ju bëri ratatat ratatat kenn mënul dégg Sénégal. tu n'es rien du tout wax ji dafa bëri dama ne sa wax ju bëri jooju yemale ko Sicap fii c'est Thiès dégg nga bu baax li ma la wax. man je suis là pour le peuple sénégalais fépp foo xam ne am na loo xam ne war a fa dox dama koy génne leeral ko dox ci ay àq yu leer naññe dégg nga bal ma la wax te li ma la wax c'est clair et net li ma la wax da nga koy def reprendre scène bi à la réalité mënuloo ko ma door la pétition tëj boîte bi. Ah, c'est clair dama tëj boîte bi ah. <laughs> pétition nga de pétition Yo xam nga lan moy pétition Yo sonal nga nit ñi laalo ku wax nga ni pétition ngar bi pétition lepp met tout pétition pétition yow ya tax Sénégal ñepp xam lan moy pétition té kenn musu nga bind benn pétition sonal nga ñu hein ah? mais mais les gars mais qui il m'a défié hein mais qui xanaa xam moi mais on défie pas la Diarra mais. mais yéen dë jóg leen. ah hein? jóg leen. mais xoolal mais yow da may défier.

tey kii xiib da koy dal bu baax lu leer laa la wax. mais là il sois un peu réaliste boy ñun fii dëkkuñu fi xamuñu fi kenn donc comment on va les convaincre à signer. booy looy wax nii booy on est à Thiès amul tiit amul ragal booy on va faire tous les ruq-ruqaat de Thiès booy gis nit ñi boy, expliquer leen c'est quoi l'histoire xam nga mën am seen signature dem jox ko les autorités concernées ñu déposer ko ci mairie bi bu ko defee pétition bi day mën a dal waa ñu wax place am parce que nous on est là boy, pour sauver la jeunesse on doit pas laisser notre jeunesse perturbée par des images yoo xam c'est pas réel des faits fiction yoo xam ne non tout sauf ça quand même. non enfin sax ñun ñu mën a gagné benn combat boo xam ne leer ñun gagné nañ victoire quoi. Boy, da nga bëgg a wax ni ñun mosuñu am victoire. fan la ñuy jëlee victoire. mais boy, tax nga topp ma yow ah. Boy, boy, xo xoolal ngel bi booy. mais boy, mais boy, xale bi mool na booy mais booy man xaw ma si combat bi dañ koy gagné ou pas hein. Mais moi, je m'installe à la pièce. boy. Mais boy, yo, mais pourquoi tu peux pas rester concentré Yo, qui Tu dara, joko ataya. Ay signature mo ni fi indi, dem. Vraiment, dama Boy, yow yaa ngi nii dama def nii yow dama def nii yow xam nga. waaw Fatal bi Fatal bi Fatal bi. suma gars yi ak moom wala boog. ma waar waaye na ma waar waay. wala boog mais ko bëri rek mais lépp a ngi faj. jaay taaru guy baa ngi. yow sa déguisement sàcc bi baa li ngay soxla. mais nag tey. Thiès naqar moo fi indi. naqar. mais si dama mer. yow mbaa dese. non non wax la ñu ne bu dee dese la ñu ànd ak yéen.

pour dóor ko pétition. dóor ko lan pétition. parce que yéen ñaar bu ngeen ma joxee seen signature d' accord ànd ak man léegi ñu dem. Hmm. pétition bi da koy dal day gën a dëgër. a comme lan nga koy dóor nga ne. pétition pétition <laughs> quoi. boo bokkut ak répétition. pétition. <laughs> pétition. comme <laughs> c'est pas drôle. Eh, noppali yow sa gémmiñ gi nga mel ne tàndarma. waaw yéen flamme bi ah, waxlawu ma la. tàndarma bu wóobu wala bu tooy. Eh, loolu concerné wu la kii bu tooy bi leen doon xam nga lan la nit da ngay xam sa bop liñ la boole ak li ngay forcé ñu benn. bu fekkante ne dafa am benn pétition booy dóor da ngay toog sa biir Sicap foofu nga dóor ko waa Sicap fii Thiès la ñun mën nañ ko régler suñu bopp beneen bi ci des na ma ko yokkal mooy booy waxatee ak man na nga delloo kanam sa kanam xóot di mel ne bàmmeelu liir man ngay ma day dóor ma ñun ay la ñun duñu ay ragal xam nga lu ñu dama bëgg nga régler ngay mel ne daxi nii gis nga yi ngay fudur nii di xulleeku mel ne ku ñu dénk doomu rab fii Thiès la de money li ngay def na nga ko yemale Ndakaaru Njaay. xam nga laa bëgg nga jaar nii. yow jaaral nii nga avancé. Eh, fii sa giñol ñoo fi rek. na la ñuy bàyyi nga xool yow jaaral nii nga avancé. jaar bàyyeen ñëwal eh. yow demal yow. sikki mu goñal bi giñol giñol giñol. yow bon bon bédiso bon bon. gaja gaja gaja bon bon. eh yow jàllal yow ku la gis xam ne yàgg na ragal ñëpp. bu bëri moo nekk ay oto sam la bédiso bon bon. aja aja aja aja. yow xam naa ne moom prison la mom gisoo ko mbaxana bi kii ki dafa dëgg prison la tey bor xol daan boy boy booy <laughs> yow dem kaay ngay mel xal xaal nga xamna la bax door door door ma bàyyi kii rey na ko yar door allo boy booy juróom mais juróom fan nga nek boy boy man xolo boy ñëw ma Thiès pour taxawal ah ban seen mbokk man ñëw ma fi ay mbokk ah nga dañu ñëw pour une mission boo ñëwee damay dem sama yoon ñoo ñu toog ci si bind ay petition nga nek ci dëkk bi taxawal comme ça c'est quoi ça. Oui. Oui, oui. Oui, oui, sax Oui, quoi. grand c'est hein? pétition contre la maison de production oui c'est ça hein. une pétition bien rédigée quoi parce qu'il faut que ça soit clair ma petite boîte hein? bien noter mais là, pour la mon mais c'est jaune. Mais c'est Mais évidemment, Montagne a d'autres pétitions. Mais toi, pour réfléchit pas quoi. Il y a un en tête, mauvaise restitution. C'est parce que maman règne oui, mais 1000 pièces, hein, parce qu'il nous faut 1000 signatures. 1000 boys. on n'est que 5. C'est plaisir, c'est bon. soxna si ça va na def. waaw ça va laaj. yaa ngi si jàmm ah. yaa ngi neex. mi ngi rek. mais si seen nga film bob sur la rébellion de Thiès. C'est naa ko film bu neex. ah oui mais xam nga série bi ni ñu ko bindee baaxul quoi. Mhm. c'est-à-dire que c'est pas la vraie histoire xam nga montre actuellement nii ma bëggoon nga may ma sa signature quoi comme ça ma dóor producteur bi pétition comme ça ñu tourné waat film bi avec la vraie histoire. mais yow loolu ci sa yoon en plus tax yow musoo maa neex. Lol, sa yoon nekku sa kanam gu bis bi sama waa jëw indaale wa kersa de jooyu ñak nga kersa de signal signal bi signal voilà exactement ya, ya ñaa laa ci mën a am parce que dama la war fay waaw ah, mais yow it ay temps is money na temps daa seet dama bàyyi lu bëri ñëpp defal lii tamit mais dafa nga joxe dara da dama bëgg xam ndax ngay signé wala signé wuloo non grand damay signé mais c'est que man suma problème paaka bi la quoi xam nga gars yi au temps daawuñu utiliser 37 paaka ñaari boor lañ doon yor ba pare ah gaan bi dafa waroon daas paaka bi gaan daas daas daas daas ba étincelle di tëb mais loolu la quoi. ok am problème loolu léegi dinaa ci baye xel quoi buñ koy réaliser xam nga léegi du gannaaw si man dama xaw a yàqamti. mais benen problème tamit moy position jëriñ ah mais grand billahi man artiste la sama papa mo formé artiste yi nekk Thiès yépp mais jox ma rôle bi gaañ dama koy assurer grand du garaaw bo démé nga nuyul ma sa papa dé nga baax ba noonu. C'est vraiment gentil, hein. Ouais, Mais est-ce que je peux avoir votre numéro Ok. <laughs> Ouais, les femmes de Thiès, elles sont magnifiques, hein. vous êtes magnifiques. Hein. Ah ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. Ouais, vous êtes machallah. Hein. <laughs> Voilà. Bintou, c'est ça Oui, Bintou, oui. Ok, d'accord. Ah, ah. Je vais vous faire signe, Inch'Allah. D'accord, Mais est-ce que c'est possible euh, d'avoir euh, un bisou, quoi, tu vois Où euh, <laughs> Je suis ici. Ok. Hmm. Votre série revient après la pub. Les maîtres de la peinture, Sénac, Moké Amal, samedi 4 juin, tu foyer Prosper Dots de Saint-Louis. Sénac Peinture, bien plus que de la peinture ne pas actuellement man quatre signatures et vous. man am deux signatures Je hein. ah, aussi j'en ai deux hein. bon man ba trois euh, hein. mais comment ça fait am benn ah on est mission di top, comme ça Il faut arrêter quoi voilà arrêter. de du man du man yow am nga benn Il faut arrêter mais la mooy différence bi. non non booy arrête quoi boy. mais boy, avec un comment on peut avancer Hein Là, rajo man maa ko gën mais cette fois-ci il est pas fautif. ça boo bëggee dégg dëgg population Thiès ñoo adhéré wul pétition bi échec la de bari. Ah, adhéré wuñu mais ñun defaruwaat nañ defaruwaat quoi ñu defaruwaat. booy xam ma échec la xam ma du échec mais mon xool du ma génn Thiès c'est sama mission matul si ça marche pas on va chercher un plan B c'est tout. c'est-à-dire lan mais on va chercher un producteur à Thiès et comme ça nous pour nous nous jël film mais attends là quand moi nekk acteur yi ñun. xam nga dof ñun bu pas nekkul acteurs yi on est nekk acteurs yi. on n'a pas d'argent pour payer artistes. il faut réfléchir quand même. mais quand yow a lii moo la dese woon ñun soppi ñu ay ay ay comédiens. wax c'est sérieux hein et on va le faire. xool gars man je suis d'accord avec ce ce avec cette idée là quoi xam nga léegi distribution rôle yi ah maa koy joxe ba maa nekk Serigne Jay comme ça wala boog ma am buzz quoi. boy. Yo, figurant ça doo est-ce que tu as bal ma la wax. là, là. là la xew. Mané figurant doko don wax. je pense qu'on est ok on y va est-ce que là on va montrer notre talent de comédie. Hmm? Mais non, quelle surprise! L'activiste!

kan moo leen wax ni man damay génn di def comédie ci mbedd mi. ok grand Mbaye al ñu sa xol ñu teg si ataaya yow da nga tàng xol quoi. doo teg ataaya baaru glace ngay teg mu sedd guy. yaa et puis l'activiste laay lan ngay def ci dëkk bi looy def Thiès. ah oui mais en dara juste

Non, nous nous hein. mhm. mais quand même, on, a du talent. Mhm. Oui. Ok, d'accord. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire Demain, nous avons un spectacle pour promouvoir les jeunes talents de Thiès. Donc, ça fait l'occasion. Ce fait qu'il y a deux scènes différentes. Nous avons dem, programme ngeen joué la producteur bi bu fekkee d'accord non on met le paquet et puis on travaille ensemble la vie est belle. mais mais loolu c'est pas un problème. c'est bon juste deux scènes. ah oui deux scènes non dañuy ñëw def deux scènes hein, ah toog fii. ah oui avec bi moom bëgg leen rek. Euh, jo du bëgg leen parce que mën nga bëgg moom mu bañ du bëgg mën la. c'est-à-dire que dañ lay bégee. tout ça waaw ah ah, mais bul fàtte ñun tamit sa jooy boobu ñuy jooy noonu. man maa la ko dàq fuuf dama ñëw rek bëgg la may kii nii ah. yeah it's me. <laughs> amazing. Yeah. It's amazing. Pardon, It's amazing. It's amazing. Huh? It's amazing. Amazing. Yeah. Quoi? C'est magnifique. Moi, ah, li moi c'est magnifique. Yeah. Vas-y encore. yaa gis non yii doo ci bëri paiement de les gars s'il vous plaît wax leen ko aussi tamit xale yi dañuy quand même parce que jooy dafa am noo koy harmoniser tu vois may dosé buy jooy da T'as quoi harmoniser quoi. T'as quoi harmoniser. Oui, c'est simple quoi on va essayer d'improviser deux scènes théâtrales yoo comme ni Thiès la Mais a daw mais faut y aller au Sénégal hein là justement tu me donnes une idée. yaa ngi fàttaliku théâtre askanu la sa neex séquence boobu noonu photo ma mag une photo.

bon yow figurant nga. lan la yow mën naa la sax bàyyi Dakar figurant nga taxaw fi ngay taxaw. figuration ko. mais boy pour deuxième bi man je veux qu'on refasse la scène. Babacar sa baye laa déglu sa baye là <laughs> non boy boy séquence non ça m'a grave marqué boy. boy boy bobu dañ koy dóor mais boy sérieusement wa Thiès c'est des grands artistes ah. ah ouais sérieusement. voilà lan la loo jooy. boy booy théâtre dee na booy xool ma artistes yooyu ak talent biñu amone boy booy booy la boy ligue léegi maison de production leen neex lañu def ay tourner ay ta ta ta ta taat xam nga affaire demee noonu quoi ay xalé jigéen ñi lañu duggal ci affaire yi amatul ben yété amatul dara hein? mais non man xam ma lii lan la quoi. boy je me rappelle boy je me rappelle au temps y avait un vieux boy bu doon yuuxu. C'est mon souffle qui ẹ c'est bon on a plus de, de temps à perdre on fait le maximum compris le ko on nga ko waaw chaise après moi bon. il accompli bon, bon figurant figurant waxaguma é que nga romb delluwaatal non mais ci bon taxaw xaaral ma jël position dégg nga booy photo ma mais mon père doo defar sa kanam bi mais booy yow xanaa doo dégg yow doo photo kii te du yaa o bu baaxul ma defaraat photo ma

man sa baay maa lay woo. Babacar sa la déglu ko sa baay la amal jom sa la. xoolal ni nga tilimee xoolal ni nga darante xasaw bi dën dën dën. la déglu ma sa baay la.

félicitations. oui kontaan hein? naa trop bon. Hein? mais vous êtes bon. toj ngeen ci biir hein? ah mais je vous dis une chose hein. producteur je pense que ni def leen di produire ah. alléluia. Oh, merci beaucoup. ah oui mais c'est mérité hein. c'est mérité. oh. grand mbay xamoo sax li nga def. non je te jure waay. mais là c'est c'est comme ça la vie ah. non, là, noonu la ñuy jàppalante. léegi donc man dama leen di demander benn faveur. gars yi salle bi doyaluñu. non ñu li ngi leen ñamal dafa gàtt dama bëggoon ngeen xool loo leen mën a gérer ngeen yëgaat def benn vingt minutes bu dëgër. ah mais mais gannaaw ñun ñaari seen yooyu lañu fee di ah, ay ndaanaan ngeen ay artistes ngeen kenn mënatu leen a bañ ci réew comprendre nga improviser leen quelque chose boo xam ni benn tampon la bu dëgër ngeen yëg présenté ko fee.

Euh, je pense que nous apprécions les bu baax euh, li un donc ay talent depuis Dakar donc sans plus tarder Cap Comedy Club dañuy ñëwaat en place pour bégal leen applaudir Les bu merci Reste tranquille. Et non, te voilà Et tu vas subir les conséquences. Hé, reste tranquille J'ose entrer dans mon bureau sans frapper à la porte te crois où Où tu te crois tout permis, c'est ça. Mais nous fii xel njël de Dédé, série Richard Dieye

Mon commandant,